donc ay côté 7h35 la ñuy woo nañu am na benn euh, lakk-lakk bu am euh, marché Petersen maa ngi leen di fàttaliku yéen ñi xam na am na ñu bëri ñu fi nekkoon il y mois aussi amoon nañ benn feu à même pas 50 donc lu tubaab di wax les mêmes causes produisant les mêmes effets waat nañ ñu tey encore euh, pour benn feu donc bu ñu yegsee engins Malick si comme ñoom ñoo gën a jege tel nañ yegg si quand même en depuis de ku xam. centre ville xam ne heure pointe la heure yooyu mais quand même yegg si nañu après bu ñu yeggsee ñi xam ne quand même ay de marché généralement day soxla ndox mu bëri day soxla engin ñi demandé renfort donc renfort pratiquement engin Dakar yëpp ñëw nañu engin Dakar yi bu ñu ñëwee fu mu ne nii présentement dans Dakar euh, yu caserne Rufisque rek moo des ñoom ñooy gérer certainement ñoom ñooy gérer probablement donc lépp lu mën am sur la banlieue et alentour donc bu ñëwee engin yooyu action yi combiné ñu permettre ñu circonscrire rapidement feu bi nekk maître du feu et la à dix heures et quart la ñu fay lakk bi fay lakk bi nag ça ne pas dire que opération bi jeex na opération yaa ngi continuer donc vous ñoo ngi ñëw di dugg ci cantine bu nekk euh, di xool di di di di déblayer yëkkati zinc yi pour xool ci suuf ndax amul benn tàkk-tàkk bu mën a propager wu suñu demee donc ci yooyu lañ nekk soo xoolee seen ginnaaw sax garab yi ñoo ngi tàkk xam ne yooyu yëpp foog ñu ñëwaat après fay que ñu suñ demee tëdd nelaw ñu bañ ñu woowaat naan ñu ah, ah marché ah, Petersen fi ngeen nekkoon léegi tàkkaat na loolu la ñuy daw présentement waaw lakk bi nag fu mu jógee mënuñ ko wax avec exactitude yooyu généralement enquête moo koy mën a def parce que lakk bi bu ñu démarré duñ fi nekk donc après il y a des enquêtes poussées yu ñuy def donc à l'issue de ces enquêtes là autorité compétente dañuy wax exactement lakk bi lan moo ko waral fan la jógee fan la démarré waaw dégâts yi moom soo gisee rek à euh, coup d'œil comme je dis dinañ def benn analyse benn approfondie gën a saytu ak les responsables du marché parce que gis ngeen ne ay cantines ñoo fi nekk am na ay tablier fu mu ne nii kenn mënu la wax fii ñaata tablier yi ñoo fi nekkoon ñoonu autorités yi comme ñoom ñooy liggéey ñoom xam nañ xam nañ kan moo fi am cantine kan moo fi am boutique kan moo fi am table comme nu ñu defoon ak euh, lakk Petersen bële bu septembre bi daaw nañ defaat la même chose pour na am vraiment Euh, une exhaustivité ci par rapport ak dégâts yi ak euh, ñan ñoo ñan ñoo ñan ñoo tiisle ñan ñoo am. waaw ndox xam nga ndoxu pompier moom comme on dit citerne lay def citerne bi maximum ay am na yoo xam ne 1000 litres la ñuy def am na 6000 litres yoo xam ne pratiquement en quelques minutes day jeex normalement pompier liggéeyam mooy ndox donc ndox mooy. en fait il faut que mu am benn jumtukaay lu ñuy tuddee hydrant mooy bouche wala poteau d'incendie buy def ne mën na fi def sax ay fani fan pour na pas dire ay mois il suffit juste ñu changer personnel bi lool su amul ndox mi su jeexee oto bi day dem rootiyaat su demee rootiyaat aussi il faut convenir que lakk-lakk bi du xaar e comme comme je vous ai dit engins yi aussi fu ñuy jogee day sori te xam nga heure de pointe la heure de pointe aussi euh, engins yi du ñu naaw pour yegg si fii donc dañuy suivre circulation man mii sax bu may ñëw Guédiawaye laa jóge mais dama klaxonné ba sonn balaa maa yegg si fii donc vous voyez déjà te man oto bu ndaw laa yor boo yoree oto bu mag nag ba a def am na aussi ay précautions yi ngay war a war a jël pour éviter quand même ngay dem di sauver ji nga def accident donc yeggoo indiwaat beneen tiis waaw. non ñoo fu mu ne nii moom naa wax chaque année on vous répète les mêmes choses c'est sûr que certainement si ça continue comme ça dinañu woowaat encore pour Petersen ak pour feneen. kooku yàgg nañ ko wax du tey du suba aussi on dira la même chose donc tant que restructuré wuñ marché yi toujours même chose lay am rek. ñaata camion citerne nañ indi pour fay la. Euh, yëpp ñoo ngi fii camion citerne Dakar yëpp fu mu ne nii suma camp Dakar yëpp. benn rek moo fa des mooy bu nekk Rufisque comme ça au moins moom mu mën a jël parce que lakk-lakk mën naa am fii beneen aussi mën naa amaat foofu waaye voyez c'est day day day compliqué donc moom rek moo fi des pratiquement suma citerne yëpp ñoo ngi fi soo leen goo xoolee aussi yeneen service yaa ngi ci borom yëre yu orange yi ñoom ñooy sauvetage déblement ñoom dañuy ñëw fii pour ñu aider ñu parce que kii euh, lii ferraille la foog ñu dagg ko comme je vous ai dit après dañuy dugg cantine bu nekk vérifier nit ki su fa nekkul su mënul ubbi ñoom ñoo koy dajji pour ñu mën a accéder soo leen xoolee aussi problème cheminement bi dafa xool foofu ci Papa Gueye Fall yëpp fii lañ nekkoon donc on est obligé de loin mën a ñëw établir yooyu aussi ci day yokk délai yi ce qui fait que ñun suñu liggéey en fait empêchement yi day bëri pour ñu mën ko def avec le maximum de rapidité et d'efficacité si on avait un marché moderne balaa ñoo egg si sax waa marché bi ñoom am na déjà lu ñuy def donc loolu su amul su amul service de garde su amul ay fil yoo xam ne sax parce que aussi on a eu des problèmes bu njëkkee ñëw euh, électricité bi ñu njëkk ñëw engin mu njëkk a ñëw bu doon commencé arrosé da doon am ay étincelle c'est-à-dire que coupé on était obligé woo Sénélec pour ñu couper courant bi xam nga yëpp ay délai la parce que ndox mi aussi ku xam ndox xam ne day conduire kii donc fallait faire très attention donc précaution yi ngay jël yooyu yëpp lakk-lakk bi du la xaar. magasin yi jot a lakk est fu mu ne nii loolu laa doon wax léegi mënuñ ko xayma nii de prime abord parce que il faut ñoo ngi liggéey comme nu ñu defoon il y a six mois ak lakk-lakk bu amoon beneen côté bi euh, ak les responsables du marché. donc ñoom ñoo xam kan moo yor table kan moo yor magasin parce que fii nii xoolal rek ay tool nga fi gis xamoo ko fi yàgg romb di nga xam ne bëri na ay cantine bëri na ay tablier donc suñu liggéey ak ñoom dinañ ñoom xamante nañ seen biir dinañ ne diw moo nekkoon fii diw moo nekk fii donc de manière exhaustive dinañ mën a xam euh, également